Moustapha Diakhaté représentant candidat Ousmane Sonko di mandataire noonu fii ci Touba. waaw ba fii ñuy wax ak yow daal xam nañ ne déroulement vote bi tout se passe très bien parce que bureau yi ubbi nañ à depuis huit heures bi yi ubbi nañ nit ñaa ngi voté en tout cas gisaguñ fi benn erreur nit ñaa ngi voté massivement nit ñi génn nañ ñu ngi voté massivement. am nañ yaakaar daal ne balaa 18 heures mboolem population bi ñëpp dinañ voté incha allahu rabbi non nit ñi nag moom jàpp naa ne loolu responsabilité état la woon rek waaye matuwaay yi nga xam ne ministère de l'intérieur jël na ko ci élection yi gis na ne tax na vote bi déroulé na ni mu daan ni mu waroon a ba tax na jàpp nañ ne daal balaa 6 heures incha allah lépp dina jaar yoon ndax nit ñi moom kaaraange mooy mooy kaaraange mooy yor am réew boo aaree nit ñi rek nit ñi dinañ voté ci jàmm bi ci jàmm te dara du am waaye nag bu fekkee ne da nga bëgg a organiser ay élection te yow mi nga xam ne yow lañ dénk kaaraange réew mi jëloo say matuwaay mooy waral li fi daan am di fi am waaye ren moom mel na ne li mu waroon a jël lépp jël na ko kon moo tax ba fii ñuy wax ak yow daal benn problème élection yi amagu ko ñëpp a ngi voté d' après sun ñi ñuy dégganteel ci yeneen centre yëpp vote bi mi ngi fay jaar yoon fii ci Touba daal amaguñ benn problème moom ci lu jëm ci lu jëm ci loolu vote baa ngi jaar yon